asalaamualeykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Sénégal dal dinay dugg ci kaan bi ak victoire premier match premier victoire loolu nag nekk lu dal xel Sénégal mooy defending champions ndax ñoo gañu woon kaan bi weesu tey jii ñu daal di ciy dugg ak ndam waaye match boo xamante ni day bu jaaxaloon ñu bari la ndax kat derbi la woon derbi Sénégambia ndax Sénégal ak Gambie moom mën nañu wax ne daanaka benn réew la waaye nag rivalité bi moom mu ngi fi Gambie gëmoon nañu ne mën nañu am ndam ci match bi le waaye Sénégal itam gëmoon ne gagné rek moo ko ci war a mën a génnee comme mooy defending champions di dugg ci compétition beeg ay match nii la lépp dalul xel dugg ci victoire mooy li gën a xel moo tax lu nu mel la dal di am dafa door Gambie 3 but à 0 bu ñëwee nag ci match bi mën nañu gis ne sélectionneur nationale di Aliou Cissé dafa ñëw ak système 4-3-3 waaye boo xam ne léeg-léeg mu dal di dégg maam soppeeku doon système 3-4-3 comme ni leen ko waxee démb rek ci vidéo bi ñu si def voilà ci 11 probable bi mën nañu wax gis ne benn coppite moo ci am mooy Cheikhou Kouyaté bi ñu dal di dégg maam jox place Abdou Diallo loolu képp moo ci changé mais système bi exactly comme ni ñu ko jàngatee noonu la ko indee toujours bu ñu ballon bi voilà da ngay gis ne kii di Abdou Lahad Diallo dafay nekk ci diggante kii di Moussa Niakhaté ak Kalidou yi bu ñu ñàkkee ballon bi nag gars yi dañuy wàcc may ko moom mu dal di nekk maam dégg maam nekk seen kanam mel ni kuy jouer benn rôle 6 noonu la ñu jouer li nga xamante ni maanaam mooy li ëpp ci match bi bu ñu xoolee nag comme ni ngeen ko waxee 11 bi ni la daldi teude edouard mendi mo daldi taxaw ci camp yi khalidou koulibaly moussa niakhate abdullah khat diallo ismail jacobs ak crepe diata ci ñaari côté yi ñu am pap gueye ak lamine camara ci digi bi sadio mané ci côté gauche ismail assar côté droit abib diallo mo don pointé non lañu duggé ci match bi sénégal di doxal match bi daw tout rek 4 minutes pap gueye daldi ubi tiaxi pap gueye mo duggal bit bi ñëk ci match bi gannaaw ben pass bako ki di sadio mané daldi pass pass bi nak ki nga xamanteni moy lamine camara sax man nañu wax né mo liggé mbiri ndax mo duggal bal bi ci bir surface phase bi gannaaw bi nga xamee ne kat dégg nga maam dal def benn centre mu jóge ci côté gauche dal di ñëw ci biir surface yi fekk fa Sadio Mané mu dal di koy tegal ki nga xam ne mooy Pape Gueye mu dal di ubbi caax loolu tax ba ñu bari bari dal di yenneeku voilà pression yëpp wàcc ñu dal di dugg ci match bi ak xel mu dal fekk avant loolu dañu dugg ci match bi prime rek Gambia am li nga xamante ne mooy benn occasion dal di koy dóor Edouard Mendy dal di koy génnee na xel waaye nag bi Pape Gueye Sadio ci ñoom la ballon bi dal di jógee kon Pape Gueye moo marqué Sadio Mané dal di assist ñu continuer doxal ci li nga xam ne mooy premier mi-temps bi ba léegi bi ñu dawalee nag ba ci kanam ñu gis ne nag ñu bari amoon nañu jafe-jafe si daan bi ndax signal bi dafa daggoon ñu laa ñi di kaaf nag lay nañu seen i lay voilà naan ay dégg nga maam weeda bi laak yu kenn xamul maanaam dañu xam le daal ne jaww ji mu am jafe-jafe yu kenn xamul waaye loolu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ni gàcce la rek ndax wër na àdduna voilà lu xibaar bi gaaw gaaw daal dinay daj àdduna ñu bëree bëri daal dinañu koy gis bu ñu xoolee sax Daily Mail ci Angleterre la nekk daal dinay bind di xam ne ne kat lii moom gàcce gën a ko rëy compétition bu ñu toll muy compétition internationale àdduna yëpp di ko seetaan voilà ñu def li nga xamante ne mooy li ñu def maanaam dagg signal bi kenn mënatul seetaan ñu ngi ko bind te xam ne kat maanaam li gàcce bu rëy la te mësuñu gis lu ñu mel ñoom ñoo ko bind ci Angleterre kon loolu nekk mbir moo xam ne gàcce la bu wër àdduna ak kan ak li nga xamante ne noonu ko tubaab yi doy dalee waaye ñii di kaaf mën nañoo gis ne daal ñoom maanaam seeni a dégg ci biir loolu am na ay xew-xew yi ci xew yoo xam ne xëy na bi ñu ñëwaatee ci ko ñu bëri di soog a yëg mooy carton rouge bi nga xam ne Gambie am na ko loolu ci premier mi bi la ki nga xam ne moom la wax Ibu Adams dañ ko dal di jox carton rouge gannaaw benn faute boo xam ne dal dina koy def voilà dëgg ki nga xamante ni mooy Krépin Diatta bu dee gis naa image bu baax voilà ci ginnaawam la dal di ñëwee bi mu ko dal di dëggee nag ñu jox ko carton jaune waaye nag ki nga xam ne mooy référé bi bi mu xoolee yi ba gis na daal maanaam lii carton rouge la maanaam ci VAR dem bi ko cegee ba gis ne lii carton rouge la ci la dal ki nga xamante ne mooy Ibu Adams carton mooy li nga xam ne voilà mooy jeexal premier mi bi amul beneen but 1 boobu mooy jeexal premier mi-temps ñu ñëw ci second bi voilà bi ñëwee ci second mi bi nag Sénégal wéyal di doxal voilà mbiri jax lool waaye nag ñu gis ne Gambia doon jéem a jéem ngir yéeg ngir jéem a def li nga xamante ni mooy ni Sénégal def maanaam ubbi bi caaxi dugal ab but waaye sottiwul ki nga xam ne mooy Lamine Camara mu ñëw yàq seen programme yépp dugal deuxième but bi gannaaw bi ko ki nga xamante ni mooy Ismaïla Sarr tegalee ballon bi Ismaïla Sarr moo passe ki nga xam ne mooy Lamine Camara mu dal di dóor bal bi mu dugg gone gi dafa mën a cadré maanaam dafa xam fi muy def bal voilà bi nga ko Ismaïla Sarr tegalee bal bi benn contrôle la def maanaam pousse rek dal di dóor voilà ki nga xam ne mooy Babacar Gueye nekk gardien Gambie bi tàlli na ba jeex tàkk waaye mënul jot ci li nga xamante mooy ballon bi kon loolu mooy li nga xam ne mooy ñaari bal ci dara Ismaïla Sarr moo passe Lamine Camara daal di marqué moom mi nga xam ne jamono bi mooy meilleur jeune fii ci Afrique bu leen u bi lu nu mel na dal di wanawaat tey jile moo dugal second bit bi ndax mbir mi foofu la yem déedéet moom dafa daal di dugalaat beneen bit moom kii di Lamine Camara booba nag match bi mën nañu wax ne ci des bariwul voilà bi ñu dawalee ba ci li nga xam ne mooy 87e minute ki nga xam ne mooy euh, Elimane Ndiaye mi nga xam ne moom remplaçant na ndax dafa ñëw ci place Ismaïla Sarr moo def benn liggéey bu am solo benn liggéey bu am solo sax benn bal bu ñu ko paas digganteem ak Krépin Diatta la woon bi ñu ko joxaatee ballon bi mu wi gardien bi dal dinay tepp ba jeex tak ci top corner ba lako def manam ci koñ ba waye mënul jot ci ballon bi muy bit bu reuy bo xamanteni japp na ne moy bi gëna rafet biñu tambalé kan bi ak légui kon lamine camara double la amal ci ñaari pass yo xamne ñu ngi joggé ci ismaïla sar ak ki nga xamne moy iliman jay kon iliman jay mom itam passage décisif la ci match bobu kon 3-0 boobu moo jeexal li nga xamante ne mooy match bi voilà bu ñu xoolee nag moom Lamine Camara moomule moo dal di nekk sax homme di match mu nekk lu mérité nag ndax ñaari bit la dal di dugal tey def liggéey bu am solo ci li nga xamante ne mooy digg bi moo tax moom la ñu tànn dal di koy def homme di match premier match ci li nga xamante ne mooy CAN premier match ci kaan mu marqué 2 buts. voilà nekk tam li nga xam ne mooy homme du match moom kii di Lamine Camara bi nga xam ne xale bu ndaw la bu ñuy xoolee vingt ans rek la am ak li nga xam ne mooy quatorze jours ndax mooy a doon xale ku marqué ab but ci équipe xoolee 2002 ki nga xam ne mooy Souleymane Camara moo doon ki gënoon doon xale ku marqué ab la amoon ci jamono boobule voilà bu tegal 35 jours waaye nag Lamine Camara moo daal di dugalaat but tey jile gannaaw Souleymane Camara boobu depuis ak léegi nga xam ne ëpp na ñaar fukki at Lamine Camara mooy ki gëna doon gone ko marqué ci kan nek ab sénégalais 20 ans 14 jours kon lool information bu am solo la waaye ni mako défé mo am solo mom double la dal di def ba nopi nek homme du match ci premier kan bo xamné mo mu ngi koy soog amal. ci match bi nak amna ay coppite yo xamanteni xewna ci manam ay changement Abdoulaye Diallo dañ ko génnee. man na yoo xam ne sax xaw na teel a génn ndax boobu ci cinquante quelques minutes rek bokk na ci ñi njëkk a génn bu leen fàtte dafa amoon li nga xamante ne mooy carton jaune te xañ na ki nga xam ne mooy siisee ba nga doon daw lu mel ni carton rouge daal di ñuy dab moo tax mu daal di koy génne daal di dugal ki nga xamante ni mooy pâté 6 pâté 6 kon moo daal di dugg pour ki nga xam ne mooy abdoulahad diallo waaye Nicolas Jackson dal di dugg pour ki nga xam ne mooy Habib Diallo Nicolas Jackson moo remplacé Habib Diallo voilà waaye Nicolas Jackson mën nañoo gis ne moom it defut fa lu am solo moom ak Habib Diallo yëpp mën nañoo wax ne daanaka seen match taxu koo demee noonu bu ñuy xool daanaka Habib Diallo ko xaw a sax Nicolas Jackson fi ñu ko doon xaar moom gisuñu ko fa voilà kon tey jii doxul ci match bi nga xam ne voilà tey jii dal dina koy amal Pape Gueye itam génn na ki nga xam ne mooy Nampalys Mendy dal di dugg Ismaïla Sarr pour Iliman Ndiaye wax nañ sànq waaye nag bi nga xam ne moo ci gën a doy waar mooy Moussa Niakhate bi nga xam ne dafa blessé Moussa Niakhate dafa gaañu ñu daal di koy génne ndax attaquant Gambia bi nga xam ne moom la ñu wax Mohamed Badamoussi moo ko daal di gaañ voilà ñu daal di koy génne doon na sox sax ci biir terrain bi waaye mbir mi mu jul jëm kër mu daal di jéng maam génn Abdoulaye Seck daal di dugg loolu nag nekk xibaar boo xam ne neexul benn yoon ndax Moussa Niakhate élément la bu am solo ci défense bi voilà moo gën a solide mën naa wax ci défenseur yi mën nañoo gis ne nag maanaam ay mbiram dinañ ko topp di ko saytu ndax kat njàkkaare moo ngi ci ndax match yu am solo moo ñu xaar kon mbir moomu dinañu wéy di ko topp bu ci amee beneen xibaar ndax maanaam blessure la bu grave am déet ak ndax dina disponible ci match yi di ñëw loolu yëpp dinañ ci dal di dellu siwaat match bi daal li leer mooy Sénégal moo ko joué moo ko gagné ndax bu ñu xoolee statistique yi da koy wane voilà Sénégal moo gën a ëpp lu mu téye ballon bi ndax 66 pour cent la am gamb Gambie am 34 pour cent voilà loolu mooy possession de balle bi bu ñu xoolee nag li nga xam ne mooy total des tirs Sénégal am na 12 ci ay tirs Gambie am 10 ci ay tirs. voilà maanaam dóor mu jëm ci camp yi bu ñu xoolee nag Sénégal ci tir yooyu cinq la dal di cadré 5 tir cadré la am Gambie dal di cadré 2 waaye nag li nga xam ne mooy tiir non cadré yi Sénégal 4 la ci dal di am Gambie am 7 bu ñu xoolee tiir contré yi Sénégal 3 la am Gambie dal di am benn. corner Sénégal am na 5 corner Gambie am lu doon ci 4 corner hors-jeu ku nekk ci ñaari équipe bi benn yoon la ko dal di def ay faute nag Sénégal def na ko lu toll ci fukk yoon ak ñett maanaam 13 Gambie def ko lu toll ci 8 waaye nag carton jaune Sénégal moo am ñaari carton jaune Gambie amul benn carton jaune Gambie ñoom benn carton la ñu dal di am ci jogante gi bu ñu xoolee nga xam ne mooy ay passe Sénégal moo ko ëpp lu mu ko def 410 ci ay passe dal dinañ koy def seen biir voilà bal bi dal dinañu koy lu toll ci ñeenti téeméer yoon ak fukk waaye nag Gambie dal di koy def lu toll ci 208 maanaam ñaar téeméer ak juróom-ñett kon mel na ni li nga xam ne moom la Sénégal téye bal bi xaajam képp la Gambia dal di téye ballon bi bi ñu xoolee nag ci passe yooyu am na yoo xam ne yeggul 358 ci ay passe la Sénégal def yoo xamante ni passe yu baax la maanaam 87 pour cent ci seen i passe dafa dal di mat waaye nag Gambia 156 ci ay passe la ñu def maanaam 75 pour cent ci seen i passe moom lañ dal di matal. longue bali yi Sénégal am na 23 61 pour cent la dal di dégg nga maam complété Gambia 20 passes la dal di def maanaam ci ay longue passe voilà 38 pour cent maanaam ci léegi seen i passes yu gudd loolu mooy li nga xam ne moo ci baax muy 38 pour cent kon 52 yi ñu tànte vert rek moo ci baax ñoom waa Gambie kon boo xoolee ci bépp côté da ngay gis ne dëgg-dëgg Sénégal moo ëppoon doole Gambia ci li nga xam ne mooy jongante gi xëy na bu fekkonte woon ne Sénégal dafa xaar ba ñu a gagné su boobaa di dañu gis ne mbir mi du neex a ndax kat ñaari équipe yi du ñu tolloo doole waaye comme li nga xam ne mooy ndorteeli jongante gi Sénégal tàmbal nay wane xarañteem ba marqué ci but ba noppi téye li nga xamante ne mooy match bi loolu dafay wane ne rek maanaam Sénégal moo gënoon taxaw Gambie ci match bi nga xam ne kon tey ji dal dinañu koy amal